إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي الحمد لله رب العالمين mbokk jullit yi ñoo ngi màggal borom bi taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan mu jéggal nu sunuy njuumte ak sunuy rëcc rëcc mbokk yi ci wàllu pas-pas noo ngi dénk sunu bopp ragal yàlla waaye di leen ko dénk di wax ni ragal yàlla mooy tax jëfi doomu aadama di sell ndax ragal gi muy ragal yàlla moo koy conditionné ba lépp lu muy def mu xool ca jëmmi yàlla taala wa tabaarak borom bi taala wa tabaarak mi nga nuy wax ci alquran ne topp leen lu wàcc bàyyi ko ci seen borom waaye bu leen topp benn kilifa bu leen di dévier wala tattabiu min dunihi awliya ndax yàlla mi ñu bind yabal ay yonent wàcce alquran jàpp naa ni <clears throat> luy jëriñ doomu aadama bi borom bi wax na ko kon nag jël ay waxi mbindeef wulis waxu yàlla ku ñor du ko def moo tax sunu xutba tey comme niñ leen ko waxee woon danañu wëndeelu ci silsilatu tasxiixul imaan muy càllal ak wéralaat suñuy gëm-gëm xutba yële passé ñu ngi nekkoon ci waat ci ku dul yàlla danger bi ci nekk ak it dem ci ay njabarkat ak lu ko niru tey noo ngi ñëw ci alxullu fil awliyaa wa saalihiin jéggi dayo bi nit ñi jéggi dayo walla ñu koy ëppal ci nit ñu baax ñi ba di leen yëkkati place yu ëpp place nit di leen teg place yu raw place yu yonent bi bal àgg na sax nag ci ñu di leen di jox place yàlla loolu dafay indi li ñuy woowee bokkaale borom bi looloo tax bi mu amee ci xeet yu njëkk ya bokk na ci li def tuuti ci xeetu nuux avant moo ñëw amoon na ay nit ñu baax ndax xam ngeen ni diggante aadama ba nuux xeet lañu wuy jaamu yàlla nekk ci yoon wu jub xocc naanaam nekk ci siraatal mustaqim mais bi ñu demee ba fukkeelu siècle bi di waaj a jeex boobu la iblis mën nit ñi ndax dafa am ay nitu yàlla yu baax ñu doon dund ci jamono boobee muy wadd suwaa yaxuus yaxuuq nasr ñooñu nekk ay nitu yàlla yu baax di waar nit ñi <coughs> waaye xam ngeen ni iblis moom yàkkamtiwul saa bu tendre piège am rek dina am ñu mu yóbbu xam na ne ñi tolloo woon ak ñooñu ca jamono booba du ñu bokkaale ndax ñële wax nañ leen danger bi nekk ci bokkaale iblis bàyyi ba ñooñu gaañu seeni sët ñëw mu ne leen dee leen defal seen maam yi ziyaar dee leen pexe ngeen di xam seen maam ndax seeni maam nangam nangam la bu ko defee famille bu nekk ne sunu maam ay waaja comme ñun ni mu ñu dalee sunu maam la yàlla defal lu mu defalul kenn sunu maam maamay ngand sunu maam day naaw asamaan day dem suuf yu mel noonu ñu jàpp ko ñaareelu xeet wi ñëw xamuñu maam yi iblis na leen kon xaaral ñu depal leen fii seen photo maam loolu moo tax danger bi nekk ci photo da nga ko ciy gis ñu jël ay stati yett famille Wade ñu yattal leen seen maam ni mu mel famille Suwa ñu yattal leen seen maam ni mu mel iblis na leen ñii ñooy seen maam da ngeen leen di def ci pénc mi saa bu ngeen leen xoolee seen xel dem ci yàlla ñooñu tamit ne ci loolu <coughs> di xool ñu baax ñi ngir di jaamu yàlla iblis yàkkamtiwul mu bàyyi ba beneen seeni sët ñëw nag comme seeni sët ñëw nañu xënteewu nu xam la seen maam jàngale woon xënteewu nu xam la ñu baax jàngale woon iblis ne leen ñii ñooy seen maam ñi fi jóge ñii lañ doon jaamu bu ko defee ñële wëlbatiku nag di leen jaamu loolu mooy danger bi nga xamante ne moo indi nit ñi dem ba gëmatuñu yàlla gëmatuñu li yàlla jàngale waaye seeni maam la gëm loolu moo ñu yóbbu nga dégg ci koo xamante ni am na fitu taxaw ni nañu kennal diw mbindeef bu yàlla binde boo nee nanu ko kennal wala diw lu mu amul yowmal qiyaam bëgguma wala diw mooy waaja loolu moo ñu dal ñun dafa mel ni kiif kiif li amoon ci xeetu nuux moo am ci ñun dem ba waxi ñooña moo lay gënal waxi yàlla yàlla yónni nuux ne ko an andir qawmak min qabli an yatiyahum alim ne ko nuux sa nit ñi na nga leen waar balaa mbugal a ñëw yoon bii ñu jaar su continuer ma mbugal leen yont yàlla nuux nekk ci seen biir juróom-ñeenti siècle ak juróom fukki at muy alfa sana illa xamsina ama junniy at bu manqué juróom fukk nuux naan leen déet du ñii la ñuy jaamu yàlla la ñuy jaamu an ibudu llaha wattaquhu wa atiun na ngeen jaamu yàlla ragal leen yàlla topp leen ma ma wan leen ni ñuy jaamoo yàlla ñu ne ko dimbala sa maam du dara sa maam tekkiwul ñun suñu maam ay waaja intérêt yi nekkoon ci seen côté gars yi ñëw di ziyaar di joxe xaalis ñuy def ay xew-xew ñu ciy tedd di ci amee tur seytaane mën ñooña kilifa ya fa nekkoon ak xalifa yi fa nekkoon yu mel noonu dootuñu nangu waxal nit ñi kan mooy yàlla ndax bu ñu leen waxalee kan mooy yàlla mooy li ñuy am dootuñ ko am loolu moo tax xew-xewu yenn xew-xewu diine yi soo taxawee ni islam reconnaître la yow la reconnaître ko yow la ñuy diaboliser lan moo tax xew-xew buy génn milliard bàmmeel buy génn ay millions boo bëggee wax borom sa maam bu ko kenn siyaare bu boobaa mu ne la yow mii la ñuy régler jëlee la fi léegi nag nuux taxaw naan leen déedéet bàyyi leen lii gaa yi ne hey bu leen déglu nuux li mu bëgg mooy ngeen bàyyi seen maam laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wala yacuuqa wa nasra seeni maam yi bu leen bàyyi nuux mi ay wax la indi ay xale yu bees lañ ñuy doog a juddu xam-xam bu bees lañu indi bàyyi leen fi mag ñi la fi mag ñi defoon moo fi nekkoon loolu moo indi nuux bokk ci yonent yi gën a sonn ci woote xool leen junniy at bu manqué juróom fukk nga topp nit ñi naan jaamu leen yàlla topp leen yàlla ñuy bañ àgg na ci nit day judd ci kanamu nuux nekk liir ñu tudd ko ci kanamam mu dem ba lekk ba jaaw mbon rek lay continuer dem ba nekk ba jaaw di waat ci ku dul yàlla gëm ko dul yàlla yaakaar ku dul yàlla topp ko dul yàlla nuux dafa dem ba am expérience boo xam ne xam na ne ñii dootuñu baax bi mu demee ba neuf si école jeex <coughs> nuux naagu jàpp ne nii dootuñu jub mais pexe amut kon nuux lu ko defee mooy mu ñaan rabbi laa tazar ala al ardi min al kaafirina dayyaara innaka in tadarhum yudillu wa ibadak yàlla ñii bu ci bàyyi kenn rayal ñëpp parce que ñu bon lañ ñii boo leen fi bàyyee ñu réeral ñi nga jot a am ñi ma jot a yu daawa yudillu ibadak te li gën a garaaw wala yalidu illa fajiran kaffaara ay bandi rek lañuy ñuy jur lu mel noonu tax ba nuux mer naa yàlla ala xeet bu fekkee day am ñun ci suñu société bi ñuy dund suñu dëkk bi nga xam ni Sénégal carrefour kemtaanu yàlla la dafa mel ni Sénégal mooy dëkk bi yàlla def lépp beneen dëkk amul dara Sénégal li mu am li fi am amul fenn li ñu sañ kenn sañu ko li ñu ñemee wax kenn ñemewu ko wax li lay wan ndofu nit ñi ak seen contradiction dana àgg ci <clears throat> yëkkati nit ku baax teggi ko palaasu nit ndax bu ñu demee bay concours kenn ku nekk di wane sa waay mbaaxam su yàggee rek fi mu ñuy yóbbu mooy ci fanatisme la ñuy yóbbu su ngeen xoolee suñu tele yi bu ñu éviter benn këru diine benn waaye ñëw di wax te na ngeen seetlu li ma leen di wax gis nga këru diine yi léegi ñi ciy wax du ñu jàng de ñay wax su démb doon cosaan dañuy dellu ci seen kër yi maam ñaani ci ngénte xew yi léegi ñoo ñooy wax ki gën a rëy làmmiñ gën a mën a wax rek mooy taxaw wax kooku nag jàngul xamut lu ñuy wax lu ko neex wax diw nangam la diw nangam la diw nangam la ba ñemee àgg ci wax kàddu gu doy waar mbokk yi fitna yi ëppal ci doomu aadama fitna yi waxal nit lu jéggi dayo alquran da koo yàgg xeex sunna di ko xeex ndax jéggi dayo ci nit mooy dem ba yëkkati ko place bopp place am dal na nitu yonent yàlla isaa nasaaraa yi dañoo jéggi dayo ci yonent yàlla isaa jox ko place bu ëpp place yonent lan lañ def dañu isaa ibnullah au lieu ñu ne isaa yonent la mais dañ ñu isaa doomu yàlla la ndax yëkkatiwuñ ko place bu ëpp yonent ahaka yëkkati nañ ko beneen bi bokk na ci yahud ñoom it ñu jël Uzayr yëkkati ko jox ko place bu ëpp place yonent Uzayr yonent la bu ñëwoon dee téeméeri at dekkiwaat ñu ne kon doomu yàlla la ñii nee nañu Isaa doomu yàlla la ñee doomu yàlla la wax jooju jéggi dayoo nag ba am na ci sax ñu àgg ci ni Maryam yaayu Isaa sax nag soxnay yàlla la wal iyaadu billah borom bi boole leen ne yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum ay yéen ahlu kitaab bu leen ëppal bu leen jéggi dayoo ndax jéggi dayoo baaxul dalay yàqal say jëf sippil la ko dugal la ci loo xamante ni <clears throat> ëllëg ci réccu lay mujj bi mu ko defee comme yàlla xitaab bi am la ngir yahud ak nasaara ñun dañ ciy dugg mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne iyaakum wal xulwa fa innama ahlaka man kaana qablakum al xulw nee na bàyyi leen ëppal ci wax bàyyi leen ëppal ci kàddu nee na xeet yi leen jiitu li leen alak mooy loolu mooy nitu nuux lan moo leen alak mooy ëppal ci seeni waliyu nitu isaa lan moo leen alak mooy ëppal ci isaa nitu usayru ñoom loolu kon yonent bi sallallahu alayhi mu ne yéen sama xeet maa ngi leen di moytuloo loolu nit ak lu dara darajaam màgg bu ko rombalee nit soo ko rombalee nit rek mooy danga nga koo xas mais taggoo ko xam nga boo jékkee ba jàgg non Serigne Oumar Sall du nit léegi lan nga bëgg wax bu dul nit lan la xanaa doon jinne la te ñeme woon ni malaaka la kon li nga bëgg wax mooy yàlla nga bëgg wax da nga ragal kon baat boobu iblis day nekk ci làmmiñu nit di ko nax di ko wax loo lu ko yóbbu safara nag jaral na ko mu xeex jaral na ko bakkanam boo seetloo kay wax lu mel noonu wallahi bu ñu saaga woon Muhammad du ko déranger bu nu saaga woon yàlla du ko déranger mais liñ ko ni li nga wax du dëgg jaral na ko mu xëccu parce que iblis moo fees ci deretam di ci dox xam nga yàlla bind àddunaam ni mu toll li fi ne ci ay mbindeef Sénégal rek ngay dégg ñaari dëkk yu xëccoo kenn ku nekk nee na yowmal qiyaam seen dëkk lay amee kenn ku ne ngay topp jàngal mais contradiction yi xanaa sëriñ ci ñoom duñ koy dégg ah ab kilifa di wax ci ñoom nee na yowmal qiyaam fii lay nekk ci bërëb sàngam fa lañ koy defee yàggul keneen ki ne déedéet fee lañ koy defee ci laa defoon benn waxtaan euh, danger yi nekk ci fanatisme nit ñi di ci mer ñii di ci saaga di wax lu ne mais bu fekkee dof yi mel ni ñu ngi leen bàyyi ñuy wax il faut mu am ñu taxaw ne leen du dëgg loolu mënul nekk parce que. yëkkati yëkkati ba romb nga nit mais léegi dëkk ba sax danga koy yëkkati nga jàpp ni dëkk bi moo gën ci dëkk yi loolu ngay jàpp nga jàpp ni dëkk bi moo gën a sell su ko defee tubaab yeeg politiciens yi di leen nax naan leen ville sainte ville xam nga ñoom politiciens yi ku bëgg dof dof lu ñu dof loola gis nga sa dëkk tuddee ko ville sainte dara ci ñoom da ngay dégg naan dëkk bu tedd bi dëkk bu sell bi mel ni dëkk ba daa gën caare wala daa gën yëmbal boo demee sax yëmbal la ko tànn ndax am na lu dul def yëmbal ñu ngi koy def mais dangay jàpp borom day dem ba tuuru dëkk bi day ngande ci moom day dem ba tuuru dëkk bi day jàpp ne tuuru dëkk bii moom moo raw sax màkka waliyaadu billah mbokk yi su nit ñemee taxaw wallaahi ñëpp ay dégg li may wax léegi ku dugg ci réseaux sociaux dugg nit ñemee taxaw ne billaahi wallaahi tallaahi sëriñ diw mooy yàllay jaam ñi wala déggu leen ko it taxaw te ki koy wax kat borom xam-xam la ci ñoom léegi li ma jaaxal mooy ñaari mbir yi yow da nga bëgg a saxal ni sëriñ diw yàlla la lu tax nga wéeru ci yàlla pour yàlla dëgëral la lu tax nga ne billaahi wallaahi tàllaay léegi yàlla ngay jël pour mu nekk sa seede ni sa sëriñ mooy yàllay jaam yi nga dégg nit ñi yuuxoo fekk ay dof yu mel ni ñoom ñoo fa toog parce que boo wëlbatikoo jël mbindeef moo xam ni mënulul boppam dara dara dara moo tax borom bi ne walaqad qaalu idan shatata wallahi wax nañu musiba boo xam ni soo ko tuddee kàcc wax nga dëgg soo ko tuddee fenn wax nga dëgg ndax kay wax loola billaahi ladi laa ilaa xayru ragalul yàlla ca wax jamuy wax lan moo tax istahwada alayhim sheytaan seytaane moo leen nax rëyal leen lu tuuti ba ñu ñemee yëkkati ak kàddu mën a dem ba àgg ci ni yàlla balaa def dara day tàggu diw mën a dem ba àgg ci ne yàlla nguuram da koo séddoog sëriñ diw waaw yàlla dafa jël nguuram xaaj ko jox diw lii jël lii ne diw sa bos jëlal li ci des man lu ma soxla loo soxla nañ ci waxtaan mais yow sa yëf ñemewu koo laal mu mel ni yàlla léegi dafa am <laughs> dafa am frontière fu mu war a yem léegi nga dégg wax boobu ña bokk ak moom kër taxawuñu ne ko waxoo dëgg da ngay fen mais dañu taxaw ne est parce que feeg li muy wax compte la buy dellu ci ñoom dañuy jàpp ni lii lu baax la mbokk yi gis nga bàkkaar bi gën a rëy Abdullah ibn Mas'ud laaj na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi dafa ne wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaadan yuhibuunahum ka hubbillah yàlla nee na am na ci mbindee fii ñoo xam ni dañuy jël ak ndend ndend mooy ab sëriñ wala kilifa wala koo yaakaar def ko ndendu yàlla maanaam ndendu yàlla mooy nga jegele ko yàlla ba jàpp ne li yàlla mën mën na ko li yàlla def def na ko mooy andaada bëgg bi ñu leen di bëgg yuhibuunahum ka hubbillah jël ndend mooy jël mbindeef jox ko palaasu yàlla xam nga boo demee ba mën a taxaw ne diw mooy yàllay jaam ñi dem ba mën a taxaw ni yàlla lu muy def il faut mu tàggu diw loolu am na ñu mel noonu te ba tey mi ngi am abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayu dan bi a'zamu inda allah yow yonent bi maa ngi lay laaj bàkkaar yi ban moo gën a rëy ci yàlla maanaam bàkkaar bi yàlla gën a bañ ban la yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak ne ko bàkkaar bi gën a rëy mooy nga utal yàlla ndend te xam nga ni yàlla la bind yow yow mi koy wax xam nga ni yàlla la bind mais nga yëkkati bind bala yàlla bind jël keneen jox ko mbind googu mooy an tajala lillahi niddan nga utal yàlla ndenn mbokk yi mbindeef ak ku mu munti doon juróomi mbir yi jàppal ni kenn munu cee wuutu kenn ki nga ne mooy yàlla ki nga ne mooy dimbale yàlla ki nga ne mooy defal yàlla ñépp mbindeef lañu lépp lu lay dal ci wàññeeku daf leen di dal ñoom ci wàññeeku lépp lu lay dal ci wàññeeku di di dal moo tax benn borom xam-xam day wax ni juróomi mbir a ngi nii kenn munu cee remplacer kenn lekk sa sëriñ mënta àgg ci yàlla fu tolloog ne bul lekk baal ma lekkal la wala su ma la xoolee nga suur déedéet loolu àggu ca kon lekk kenn du ko defal kenn sëriñ bi ci boppam da koy soxla même buy làqatu di lekk nga foog ni kii du lekk it day lekk ndax yàlla dañoo bind ñu soxla lekk ndax ay mbindeef lañ dafa am lu suñu yaram yi soxla su ko manqué li ñu ci mën dimbale mooy lekk rek kon lekk moom sëriñ beeg ñëpp a na dugg ci néegam na dugg salle de bain na lekk na fomp génn doo ko gis mu lekk nga foog du lekk da ngay sa bopp moo la dàq lekk fop day lekk kon lekk kenn mënu cee dimbale kenn naan kenn du mar ñu ne la baal ma naan nga nga nga naan déedéet baal ma naanal la amul ñëpp koy def kazalika nelaw nelaw sëriñ beeg ñëpp ci yem ñëpp ay nelaw te gis nga doomu aadama yàlla rek mooy buur nit bu nelawee rek ku wàññiku la li may wax lu mot bàyyi xel la xam ngeen lu tax charia islamiya ne ku nelaw soo yeewoo na nga jàpp li tax mooy al aynu wikaa u sax bët bët mooy caabi suuf nit bët mooy caabi suufam gis nga bu sa bët xoolee sa suuf day tëju moo tax dara du génn ci lu mel ni sobe parce que sa bët dafa ubbeeku bis bu sa bët gëmmee suuf bi day ubbeeku xaw ma li ñuy wax noonu rek laa ko mën a tegginalee mënoon naa ko wax bu gaaw mais dañuy jàpp ne wax bee ñàkk teggin mais bët mooy caabi suufu doomu aadama ñaari awraam bët mooy caabi bi su bët xoolee awra yooyu day tëju saw du génn kabine du génn mais bu bët gëmmee borom nelaw ñaar yépp day ubbeeku moo tax léeg-léeg nit ki nelaw yeewu fekk saw na léeg nit ki nelaw yeewu fekk loxoom dugg na ci suufam loolu ñépp lay daal moo tax ku yeewu ñu ne la balaa ngaa def dara sa raxasul jàppul nga doog a mën a jaam yàlla parce nelaw yi ci boppam ba nga ko xësee ba def ba àndatoog sa xel mooy ñàkk nga njàpp ba nga amoon kon nelaw kenn du ko defal kenn ku nekk da koy defal boppam beneen bi ñaari ci des mooy dem cabinet tuur ndox wala dem cabinet ñépp ku ne yaa koy defal sa ku yàlla bind nga nekk mbindeef am yaay am yaay képp ku juddu am yaay rek yii ma la wax danga koy def waaw yii kan moo koy def mën a nekk yàlla yii kan moo koy def mën a nekk yàllay jaam ñi moo tax borom bi taala wa tabaarak bi nasaara waxee ne isaa ak yaayam yàlla lañ yàlla daf leen rek kaana yakulaani taam léegi xalaat leen ci isaa ak yaayam da dañuy añ dañu reer mbokk yi képp ku añ reer deux heures de temps da nga soxla ruq boobu ci sa biir kër képp ku añ ba suur wala nga reer wala nga naan deux heures de temps ou trois heures de temps di nga soxla dugg ci ruq boo xam ne doo bëgg kenn fekk la fa kuy def lu mel noonu foofu ku la ni yàlla nga day nax boppam waaye daf lay nax mbokk yi moo tax dafa am baat boo xam ne bu ko nit waxee rek tiital wallahi kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba borom bi nee na ñiy wax loolu dañuy fen boo ko waxee nag mu mel ni wax bee ñaaw borom bi in yaquluuna illa kadiba li ñuy wax ay fen kese la mooy yëkkati mbindeef jox ko place boo xamante ni bu doy waar la mbokk yi abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu nee na yonente bi nee na halaka almutanatti'un ñetti yoon la ko halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un yonente bi nee na alku ñu ne ko kan mu ne mooy ñi ëppal ci wax ñu ëppal ci def ëppal ci wax mooy jël mit wax waxal ko loo xam ne nekkul diw mooy sunu yàlla wala diw yàllay jaam ni la wala diw moom moom tey ak ëllëg wala diw nangam mooy al mooy lii ngay wax nii wax ju ëpp la alag na la yow mi ko wax moom alku nga ba pare mu def nag nga tuub walla déet moo tax mbokk yi bokk na ci di xettaliku ci mbindeef moo xam bu dee mbindeef mu dee kenn du xettaliku ci moom wala ñii dund te newuñ fi kuy dund te sori la doo xettaliku ci moom yow tey sëriñ bi nga ni yaa diw oto baa ngi accidenté wala yaa ngi bëgg a gaañu nga woo diw na dund dëkk bi mu nekk nekkoo fa même bu nekkoon ci kër gi fii ci néeg bi nga nekk fii di génn sa tànk di dugg ci pax boo ne yaa Umar Sall balaa Umar a jóg génn néegam ak sa tànk damm ndax kon am nga droit nga woo Umar Sall foofu ndax Umar Sall am na capacité ñëw léegi li ñu tafu ci yaw mooy li gën a cher mooy sa ngëm yàlla la ñu tafu ngëm yàlla jullit warul nangu ñu tafu ko am na loolu munul nekk bañal moo tax borom bi nee na walladina tad'uuna min dunihi maa yamlikuuna min qitmir ñi ngeen di jaamu te duñu yàlla wala ngeen di te duñu yàlla yàlla nee na saalu tàndarma mbubb mi ci nekk nee na soo leen waxoon nañu ko liggéey mënuñ koo liggéey yemu ci borom bi nee na in tad'uuhum la yasma'u du'aakum su ngeen leen woowee du ñu dégg li ngeen leen woo nan la nit di taxawee ci bàmmeel war a ñaanal nit di ñaan nit kii mu ngi ci bàmmeelam dañu ko suul xamoo ma nga àjjana xamoo ma nga safara njortu bu rafet da nga am nga bëgg a taxaw ne ko soxla yi aajo yi dañoo bëgg nga fajal ñu ko nga gis ñu am audience taxaw ci bunt bi naan ko am sa soxla ñaanal sëñ baa ngi tëdd fii ku gàtt xel mooy def lu mel noonu sëñ baa ngi tëdd fii sëñ bi bu mënoon dara du tëdd fii waaye ñaan leen seen soxla wax leen seeni soxla nangam nangam wax leen nangam moo tax benn waaye dafa ñëw benn bis di ma nettali benn affaire bu reelu ma ne ko man kii la mu ne benn musicien bu gaañu woon mu dëkk buñ ko suul nee na waa ji nee na biñ ñëwee ci xew-xew mi ngi dox ñëw fekk benn waaye mi ngi yore boolam kaay leen siyaar diw te fekk fecckat bi daa ko ne fecc Sénégal moom la waaw fecckat la bu doon ànd ak waykat gaañu soo mu ne kaay leen siyaar diw nee na nit ñi dafa jaar di sànni ma ne waaw kon ndeke léegi mbir mi moom ñi baax ak ñi bon ñëpp la ñuy siyaare foofu dalay yóbbu ci xel gis nga nit su génnee àdduna ñaanal ko ñaanal ko yàlla sëriñ bi moo gën a soxlawoo ñaan li ko topp ci ay nit ak li ñu ko waxal ci ay musiba balaa mu koo la ci kanamu yàlla kooku waroon ngeen koo ñaanal su ngeen duggee da ngeen ko war a ñaanal yàlla jéggal ko wallahi ladi laa ilaha gayru ku jiite ñaari nit ñett yowmal qiyaam balaa ngaa buuje da nga lay nga jiite lan la imaginal ban mbooloo moo la topp ci biir ay dof ay fanatique ñu xamul dara di wax ci yow musiba bu rëy rëy yow sax bu la neexee nga bind wax say musiba yu rëy rëy yooyu nga dara taxaw lay ko ay nit mën a am yaakaar gu toll ni yaa nga àjjana yow amatoo ba ngay dem kon lu mel noonu nit war na ko bàyyi xel dañu mës a ñëw ci benn xew-xew oustaz bi may waxal mi ngi dund du ko dégg dina ko dégg soriwuma dara bi ñëwee ci xew-xew bi ñu ne góor gi moo nekkoon imaamu dëkk bi ñi fi jàng quran ñëpp moo leen ko jàngal wala ku mu jàngalul moo jàngal ki la jàngal kon xam ngeen kii borom daraja bu mag la mu gaañu waa dëkk bi def réunion fan lañ ko war a suul biñ ci waxtaanee ñii ñu ne nañ ko suul ci jàkka ji ñaar opposé ñu ci des ñëpp nangu biñ coowee ñu wax oustaz bi jóg dem ne baal man jóg bëgg ànd ak moom mu <laughs> noonu baal man su ma demee dinaa ko régler ma ne kon bismillah man maa ngi tëdd ci keppaar gi toog di noppalu mu ñëw fekk gars yi ree réunion waxtaan ba pare bi ñu waxee kilifa kër gi jóg ne lu ñu wax mooy xam nga kii fii ku jàng alxuraan moo la jàngal wala mu jàngal ke la jàngal ñu ne waaw waaw kon kii place nekkul armée la ci jàkka jii la ñee ne waaw waaw loolu war a nekk ndax kilifa la dañ ko war a suul ci jàkka mu waxe ba pare ustaas bi jóg ne waaw damay lamay laaj benn kàddu kii li mu def ci lu baax lépp su ngeen ko tëjee ci jàkkat yi ndax dana dimbala ñeneen ñi ne leen da ngeen koy yóbbu ci armeel yi ñamu jàngal ak ñamu jàngalul ak ñu juumoon ñëpp mu taxaw fa mën leen a dimbala ñu dem àjjana gaa yi jéeg ba tax pourtant li mu wax xalaat la nañ leen ko yóbbu mais suñu sëriñ si dañoo baax nañ leen suur ci armeel yi ñu yóbbu nit ñi àjjana mais ñu tëj la ci bërëb tabax ko di ko joxe xaalis ñëw taxul naa nga fekk gis nga xel rek la waxee ak ñoom ba déranger lu mais xam nañ sax du dëgg mais ci xel lay départ ak ñoom pour xamal leen ni lii ngeen bëgg a def xel nangu ko bu fekkee kii daa baax a baax ba mbaaxam àgg na ci ñu suul ko jàkka te islam dafa ba araamal ñu suul nit ci jàkka bépp dëkk boo dem ñu ne kilifa ga ci jàkk lañ ko suul soo bëggee julli yàlla nangu la doo julli ci biir loolu yonent bee ko wax de sallallahu alayhi wa sallam du lu ñuy caaxaana de ay nekkul lu neex nit wala lu naqari nit de de amul fii fii moom sunna lañ fii nettal yonent bi wax képp ku ñu suul sa biir jàkka dañ la bàyyi ji nekkatul jàkka armel la yàkka kenn du fa suul mbindeef kaa inan man kaana kenn du ko def moo tax borom bi nee na in tad'uhum laa yasma'u du'aakum su ngeen leen woowee du ñu dégg li ngeen wax mu teg ci nag walaw sami'u walaw sami'u mastajaaboo lakum doonte sax déggoon nañ li ngeen wax munuñ ci daara gis nga ñi ngeen jaamu ba leen yàlla ne wa yawmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum li ngeen doon bokkaale fii danañ ko dinde yowmal qiyaam bu ñu dekkee ñépp taxaw nga ñëw ni diw laa yaakaaroon féttee la lay wax est-ce que sax dana la tal moo tax yàlla nu ko waxte waxu yàllaa jara jër yàlla nee na wa yowmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum waat bi ngeen waat ci ñoom danañ ko weddi yowmal qiyaam ñooy yaakaaru jaam yi danañ ko weddi yowmal qiyaam ñoo yóbbu nit ñi àddana danañ ko yedd yowmal qiyaam li ngeen leen waxal dañu ni taxaw weddi ko wa yowmal qiyaamati yakfuruuna bi ko mbokk yi nga li gën a doy waar ndeysaan maa ngi dégg benn waaye mu waat waat bu metti nag nee na sëriñam yóbbu na ko àjjana dara réeru ko fa ba pare ñëw toog ci àdduna ci suufu baax boo xam ne yaa ngi ñàkk ñu lay upp loolu xel war na ko nangu sama sëriñ yóbbu na ma àjjana wër naa ci biir billaahi wallaahi tallaahi dara réeru ma fa te moom leer na ko ne moom li mu wax moom waxul dëgg moom xam na ne moom waxul dëgg mais lan la bëgg dof la bëgg naa dofloo nit ñi mbokk yi borom bi taala wa tabaarak daf nuy xamal ni nanu yem te nekk ay jaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tatru nii kama traati nasara ibna maryam bu leen ma jay comme ni nasaara jayee isa al itra huwa al madh bil batil tagg nit ci ay caaxaan kenn du ko def kon mbokk yi nañu moytu tagg nit nit waxal ko ci palaasu nit fu mu yem waaye bu ko jox lu nit amul moom it bu amee fayda bu ñu ko waxalee lu amul na ko weddi sëtam bu amee fulla bu ñu ko waxalee lu nekkul na ko weddi ndax lii nu leen di waxal xam nañ ñi amut comme xam nañ ñi amul nañu ko dindi pour delloo yàlla mu jël palaasam yonent bi sallallahu alayhi jël palaasam li ma ciy nettali mooy benn waaye ñëw ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa muhammad yaa sayidana wabnu sayidana wa xayruna wabnu xayrina yonente bi tëb waa ji daa ñëw ni yonente bi yow suñu sàng doomee suñu sang yaa nu gën sa baay moo nu gën dégg nga ko bi mu waxee loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi jóg taxaw bi mu jógee ne ayuha nnaas aleykum bi taqwaakum wala yastahwiyannakum sheytaan ana muhammad ibnu abdullah nee na ay yéen nit ñi jël leen seen ak ragal yàlla waay waay bu leen seytaane ritaxloo barasikuloo leen nee na man muhammad ibnu abdullah man maay muhammad ibnu abdullah wa rasuluhu yonent bi amul lu gën a rëy ci moom lu dul abdullah da koy wax nee na abdullah moo gën a rëy ci ay garaatam nit nan la mën a amee lu gën a rëy jaamu yàlla munul nekk moo tax yonent bi nee na wallahi ma uhibbu an tarfauni fawqa manzilati allati anzalani llah bugguma ngeen jox ma place bu ëpp bi ma yàlla jox place bi gën a rëy yàlla jox ma ko mooy abdullah war kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu ko yëkkati place boobu léegi nag bu fekkee dañu koo bëgg a yëkkati jox ko ay mbindeef ñooña dañu leen di lor kon taalibe yi jullit ñi nanu bàyyi xel bu baax seytaane dafay nax nit ñi moom safara la jëm il faut moom ñu mu yóbbu ña muy yóbbu nañu góorlu bëggal kilifa gi lu la neex sopp ko ci moom waaye bu ko jox place bu ëpp place nit déedéet yow mii kemit même da nga contre bu ko weddi ba weddil ko lu nit mën a am ndax weddil nit lu nit mën a am sa lay tekki te yow yoroo may yàllaay maye waaye it nag bu jàpp ne yàllaay maye ba nga diw mën na lu kenn mënul su boobaa yow da ngaa ëppal kon loolu war nañ koo bàyyi xel ñu yëg ni xeet wii balaa àdduna tukki ñu ëpp danañu dellu ci bokkaale kon nañ leen moytu bokkaale ndax bokkaale yàlla da koy tere yonent yi bi leen yàlla yónnee dañoo ñëwoon di xeex bokkaale kon noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu nasrook yusru waaye dimbale ñu ba ñu gën a sax te bàyyi xel ndaw ñi shabaab yi jenes bi na ngeen bàyyi xel bu baax jàng seen diine jàng seen gis ngeen kenn ku nekk ñun ba ngay juddu ànduloo kenn booy dem bu ñu àndeeg yow it ba ca pax ma fa la ñuy tourné bàyyi la fa kon loolu baal xel ne képp ku bëgg a jël sa ngëm-ngëm bëgg laa yëkkatiloo ab mbindéef jox ko place bu ëpp place bañal dellul ginnaaw nit mënul nekk yàlla neel benn nit mënul yóbbu kenn ajjana neel ñaar nit mënul taw nit yorul ngelaw nit mënta jàppale yàlla ci dara ndax yàlla soxlawut ko kon boo déggee kuy wax ne la diw mooy yàllay jaam ñi walla diw am na lu kenn amul yooyu yëpp façon tagg la mooy ni ñaankat bi def di ko wax yow ndaw li moytu ko soo deful ndànk di nga tardeel sa bopp te li la koy wan mooy jamono ngi nii di dox de ñu ngi dox ci jamono lu bëri mi ngi tàmbalee feeñ te incha allah kanam la jëm gis nga avec réseaux sociaux yi secret yu bëri dina génn secret yu bari mi ngi tàmbalee génn dangay gis ay nit yu nekkoon ci kër génn di feeñal la newoon ci kër ga. parce que yàgg nañ ci biir gis nañ ci loo xamante ni xamuñ ñu woon ni ay naxe la léegi la génn ba xam ne lii ay naxe la ñu commencé di ko wax ci réseaux sociaux yi moo tax saagante yeeg yépp day bari gis nga bu ñu yemoon fi ñu yàlla emloo yii yépp du am suñuy xew-xewu diine bu fekkoon dañoo yem ci mu xew rek ñu ne yàllaay waaja jaamu leen yàlla topp leen yàlla nangam nangam kon jàmmam waaye diw rek mooy waaja diw mooy nangam diw mooy nangam diw mooy dem na sax ba asamaan si léegi ni dee taxaw nii toog kaa leen xool diw a ngi nii diw nii xam nga yu mel noonu ay nit bu ñu demee ba ñàkk fayda àgg ci lu mel noonu maa ngi gis fan yi benn garab boo xam ne li fa nit ñi dindi xaw ma ay xorolam la xawma ma ñu naan garabu sëriñ diw gi nit ñi def ni ku nekk di dee mais yëfu fanatisme yëfi dof yooyu nan la ko nit di defee yow kañ la seen xel di xalaat du ngeen del si ngeen ragal yàlla ba leen yàlla li bind sëriñ bi fekkewul su leen di rey fekkewul du ngeen du ko fekkee te li leen di jox preuve mooy moom génn na àdduna ñaanal leen ko yàlla ndax soxla na ko ñaanal leen ko yàlla ndax soxla na ko yonent bi sallallahu alayhi sallam moo tax mu doon ñaan yàlla ne yàlla sama bàmmeel yàlla boo ko def mu nekk bërëb bu ñuy wër di di di ci jaamu xërëm te yàlla may na ko loolu yonent bi bàmmeelam ñetti bërëb la kenn mënta dugg ba àgg joxoñ ko xanaa ku ñu ubbil nga dugg kon mbokk yi noo ngi ñaan yàlla mu saxal ñu ci tawxiid mu saxal ñu ci imaan tawxiid ak imaan nag lu tax ñu bari sawaruñ ci mooy dafay laal xol moo tax mu tudd aqida tudd pas-pas saa bu ñu ko tuddee rek mu am lu yëngu ci yow parce que la nga jëloon te mbindeef moomu ko nga jox ko mbindeef su ñu la nee loolu baaxul il faut sa xol metti loolu moo loolu nag da ngay jàpp ne lu ñu war a defal ndax yonent yi loolu moo nekkoon seen réew yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru ay yéen sama xeet jaamu leen yàlla amu leen beneen borom bu dul yàlla ndaw ñi fu ngeen nekk ci moo xam daayira la nuñ ko mënti tuddee da leen neex waaye bu amul jàng amul jàngale jóg leen dem dañ leen di nax toog leen rek sëgg leen yëkkati leen joxe leen rek nga joxe rek toog kenn du la ni yàlla nee na kenn du la jàngal faatiya kenn du la jàngal njàngam moytu ko dañ lay nax dañu lay nax suñu benn grand fa laay jeexale yàlla yàlla jéggal ko gaañu na dafa nekkoon ci benn daayira nekk secretaire u bi nekk na ci plus de sept ans sept ans et quelque xul yaa ayyuhal kaafiruun mokkalu ko xuul yaa ayyul kaafiruun mokkalu ko muy ngi waxtaan ak benn xaritam mu ne ko yow de sa daayira bi bëriwul njëriñ mu ne ko ah lu tax nga lu tax nga bëriwul njëriñ mu ne ah, yow yaa ngi ci daayira ba léegi est a ne ah, wax dëgg yàlla mosuñ koo def de mu ne mos nañ leen a bindal benn saar ngeen jàng ko mu ne déedéet lu ñu leen bindal moom kay way yi yëpp nag mokkal na ko moom way yi gars yi bind lépp loo ñu ne mu tari ko yuuxu moom loo da koy yuuxu ba nga ne kii jànkat la ndeke alxuraanam bi yàlla wàcc ci moom mun na ci daala kii nan lay defaree julli kii nan lay xamee jaamu yàlla kii nan lay xamee li yàlla santaane ci moom léegi jël nañu li nekkul wareef ci kawam mu waral ko ci kawam ba fàtte la war ci moom yàlla nañ ci yàlla musal fu ngeen bokk ci daayira nañ leen di jàngal nangu leen di jàng gis nga bis boo jàngee am nga tors bu leer nañ kenn dootu la nax allahuma agfir lana zunubana kulliha allahuma agfir lana zunubana ma na wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alam minna allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qarraba ilayha wa naudu bika min annaari wa ma qarraba ilayha qumu ila salatikum yaxfir allahu li wa lakum min sahri muslimina fastaxfiruh innahu huwa algafur rahim